asalaamaaleykum internet euh, Sénégo TV ak Kawtef ñu leen di nuyu yéen di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal weeru ko jàmm ak salaam ak lépp ñu fi ñaan rek yàlla subhaanahu wa taala nangu suñu koor ñu ngi fii nag tey ci Caaroy ñoo seet si gi nga xam ne mooy Ndeye Amy alias Selbé ci série Karma moom nag ab ndogu la daal def fi nga xam ne. fii la dëkk ay mbokkam ay dëkkandooyam wante ñi nga xam ne sekk nañ ak moom liggéey bi ndax ko ñëw uyul si boo leen xoolee rek ci suñu ginnaaw gis ngeen délestage bu yaañu bi nga xam ne moom lañ fi def ba ci délestage boobu it yéen a ngi dégg Sam Fall yi lay lax ilalaa bi ñi ni rek fii ak ay minute ñi nga xam ne ñooy invité Euh, Ndeye Amy Selbé Kaama ñu daal di ko wuyu ci ndogu bi nga xam ne tey da koy maye fii ci Caaroy euh, ñuy wax nag di remercier euh, fi ñi nga xam ne ñoo jaaraat rek ci maquillage bi ak coiffure muy waa complexe Eva Beauté ci Nord Foire seen numéro nekk ci 77 951 35 58 ñoom saa su ne rek ñoo may génnee ci ay maquillage ak ay coiffure yu yaañ suñu génnee rek ngeen apprécier ñoom seen loxo ñoo fa jaar kon internet Sénégo TV ak Kawtef jox leen dig daje ci kanam incha allah li nga xam ne mooy ndogu Ndeye Amy Diop alias Selbe Séri Karpa. ah billaay tooguma tooguma ndax bëgg a def ndogu rek. jox jaamu yàlla yi ñu lekk xam nga maanaam maanaam ñun ay porte-voix lañ ñun ay nit lañ yoo xamante ni ay référence lañ war a doon moo tax chaque jour lu baax lañ war di def lu baax lañ war a def fu fépp fu ñu war a nekk ci àddina rek lu baax lañ ci war a ndax ñun ay porte-voix lañ moo tax tey ma xam ni jaamu yàlla maanaam weer wi weer promotion la kon yoon la ñu njëkkantoo njëkkantoo weer wi jëf ci lu baax xool jàmm yàlla yi jox leen ndogu ñi ci tali yi ñi ci daara yi ñi ci prison yi jox leen ndogu ñu ndogu ak ñi nga xam ne képp xam sa wërsëg mu ngi ci. table bi dara dara wu fi lépp la ndeyaa mi def ñu ngi fiy seen ay mini pizza ñu ngi fiy seen ay beñe Nutella xam nga man nag dama xaw a noonu daal maa ngi décortiquer table bi lu ne mu ngi ci macha allah. dëgg la ndeysaan waa xam nga rek bëggal samay fans parce que tey am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a gis Selbé bi ma annoncé ne leen damay def ndogu. tey ñu bëri ñi ngi ñëw ci man ñi ngi xam fan laa dëkk loolu rek maanaam yokkute la yokkute la table bi lépp lu ma fa def rek xeeb naa ko barke Serigne Touba lépp lu ma def ci samay sachet tamit xeeb naa ko su ma sañoon damay daal ay nag def ay monsieur waaye comme ñi ngi koy doog a def première édition la yeneen jours yi incha allah rabi saa yi ci kàttanu yàlla. ci kanam rek buñ dogoo ba pare ñu jàllaat ci premier émission. incha allah. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu caméraman yi bu ñu ñëwee caméraman di sant koñ bi ñëpp leen xamal ni Ndeye Amy bu wootee ñëpp danañ génn Ndeye Amy kenn la si koñ bi oyof na oyofu la kenn du seetaan bi su jàmbur tamit am na jàmm tey ji yaakaar jàpp naa ni message bu jàlloon ah base bi kenn du fi ba si tëli bi Ndeye ami nag moo ko waral Ndeye Amy xamul ku ko mere xamul ku ko ku ko tooñ xamul leen bisu jàmm sax day ñëw defar ko ba mu jag waaw salon bu muy liggéey sax da koy defar ba mu da lay ba mu jag doo ko jox baax na mosuma ko gis mu toos su xaalis mosuma ko gis def dara da lay jox sax man ma ko luyee baas bi dafa naa am ndax baax na moo ko nii baax na ci des maa participer waaw ñu koy ñaana nag yàlla na ko yàlla gën a mën loo bu nee bu koy def mu luyee ñeenti baas ñetti baas xéwlu gën a yokk suñu borom sàmb ko aar ko ak yéen ñi mu àndal ñi ñëpp waaw si barke Seydina Mohamed. mu mel ni Ndeye Amy yëgul succès parce que dañuy gis euh, lu gën a bëri sax même bu nekkul ñëpp ñoo koy def boo commencé am tuuti rek nekk ci banlieue bi da ngay xaw a génn da xaw a aussi nekk feneen mais moom ba tey mu ngi toog te aussi caaro yi mu ngi porté li nga xam ne mooy drapeau caaro yi fu mu nekk rek daf koy wax avec fierté. waaw loolu lu wér lu am la day génn sax romb man maa jaay fii man nitu mbedd laa 5 laa yeewu. ba deux heures du matin may doog a wàcc mais ndeyam day romb sax kii naan ko kii moo nekk si xaw ma nan kër man xaw ma ñii naan ko fekk mu ne ko fenkat bu mag bi kañ waaw di ree ànd ak ree fierté si xam ni moom li muy def bëgg na ko lu mu bëgg la boole si tamit day am yéegalul boppam parce que bi mu nekkee TFM mënoon nañu wax day gën télé di yëkkati bëgg day am dafa gën a wàcce boppam waaw te li wax dafa nekk loo xam ni kenn du ma nettali dama gis tamit buy dugg daf may romb buy gën daf may man ku koy ñi ko gën a yëpp man si laa bokk te ndey am dafa nekk koo xam ni ah boo ko meree sax day wàññeeku maanaam day mel lu absenté xamul ku ko mere maanaam ñëw kaf ree gii nekkul koo xam ne daal woote ay professionnel incarné yoo déedéet moom dafa beese boppam waaw te nag un grand artiste day weese boppam waaw waaw rajo day weese boppam waaw dama koy xool ci ay góor góorgóorlu ak euh, kii euh, sën ah gis ngeen ñoom ni ñuy doxalee dafa rafet ñëpp leen bëgg waaw boo mel noonu ñëpp lay bëgg te àndee am foofu lay jaar mi ngi si yoon bi mi ngi dem tamit waaw waaw ok merci beaucoup jaajëf xéwal. tur bi nan la. ñaaña seet. lan nga ci Ndeye Amy man. damay yaayam di xaritam di magam lépp laa boole ci Ndeye Amy Selbé waaw li ma leen mën a wax ci Ndeye Amy bari na vraiment Ndeye Amy mooy nit koo xam ne moo juddoo caaroy màggee caaroy yaroo caaroy bëgg caaroy bëgg liggéey di jigéen bëgg boppam wax dëgg fa yàlla bëgg fameem aussi gëm boppam nag ndax jigéen la mais bu ngeen xoolee li fi xew fii ngeen war a xam ne ku am jom la ndax lii jom rek moo koy def am na nag ay nitam mais dafa ne moom première am ñaxam la koy defaree amul kenn ku ko ci fekk wax dëgg yàlla ñaxam la fi ñëwee ndax dul di nelaw day teel a xëy di guddee wàcc day am ay 3 heures du matin lay wàcc ndax répétition fa ñuy dem sori mu ñëw di jigéen wax dëgg yàlla di koo xamante ne bi Caaroy Gaar dañ koy sant di ko gërëm wax dëgg yàlla muy artist boo xamante ne bi dafa gëm boppam bëgg boppam nday ami la tudd mais kenn mënatu ko wax nday ami ndax salbe vraiment xale yi salbe salbe salbe day photo wu dañuy ñoddi dañuy xëcc mais mu nekk ku ouverte koo xamante ne bi lépp ngëm-ngëm la ndax boo nee man dama oyof da ngay oyof ci lépp xale bu ndaw mën na ko fee yendal amul benn problème nday ami Selbé wax dëgg yàlla. lan nga koy ñaanal dégg naa célibataire bu mag la aussi. waaw ñoo bokk groupe célibataire yu mag la. waaye célibataire ay conseillers célibataire. <laughs> ñaanal yàlla may ko borom kër gu baax ndax gis nga boo dee responsable jëkkër moo lay mottale yal na ko ko yàlla may balaa déwén buy def ndogoom yi bu déwénee yàlla na koy bokk di ko organiser ak boroom këram barke Mouhamed barke weeru koor bi ñu koy ñaanal nag li mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko kawe yàlla na def lu weesu njortam bu déwénee bu soobee yàlla barke Seydina Mouhamed ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal nag yéen tamit wax dëgg yàlla yàlla yàlla barkeel seen liggéey. nañ sa journée bi mu nekk loo xam ne nag tëni na la ak ci organisation ak aussi li nga fi def ci teraanga mais dañuy ñëw rek ci première édition bi lan moo la motiver tey ba kooru ren bi nga xalaat ne da nga war a def ndogu may ko jaamu yàlla yi ñoo defee ko aussi sa koñ fi nga xam ne mooy Caaroy ok waaw li ma motiver moom bari na ndax tey bu nekkee Salvé Salvé international la Salvé instant bi kenn naattab leertu ko am na ci ñoo xam ne tey ñi ngi bëgg a gis Salvé xamuñu may na may naa def naa benn porte bi nga xamante ni wax naa samay samay samay samay xarit ak samay fans na leen caaroy laa dëkk te caaroy laa am te buñ dee liggéey dëgg yàlla dix mois xaw ma onze mois benn weer bi nga xam ne weer promotion la war nañ ci mën a jaamu yàlla war ci mën a profito def ci def ci def ci lu baax loolu moo motivé ma def ma def euh, ndogu li ma def tey. mais bés bi aussi cofoo ko ndax gis nañ marketing buñ ko mënee jàppee noonu gis nañ aussi organisation gis nañ aussi li nga xam ne mooy bernde boo tiimee table bi di nga xam ne fii xaalis dugg na fi fond la t-shirt yaag yooyu yëpp organisation boobu est-ce que mun nga cee revenir surtout aussi t-shirt yi parce que message la boo xam ne yaa ngi koy véhiculer pour say pour say fan. dëgg la waaw euh, maanaam. <laughs> nekkul lu nekkul lu oyof aussi mais nekkul tamit kii lu diis parce que bi ma koy def bi may jug di préparer def sama ndogu gannaaw yàlla yaakaaruma ci kenn sama doole laa ci yaakaar ndax la ma liggéey as néew mu tuut ka bari kii pour man war naa ci mën a génne def ci loo xamante ni dama ci jaamu yàlla waaw bi loolu weesoo t-shirt yi nga gis dañ ma nommé meilleure émiss Sénégal ma def ko boole kook sama doomu ndey yi ñu sol des na ñeneen sax mais comme temps bi dafa xat xam naa ñëwuñu wala ñu tardé moo tax ma defoon t yi pour gën a wane ni maanaam Selbé Selbé international la Selbé Selbé national la Selbé Selbé ñëpp la loolu waroon ma def t-shirt yi ndogali nag dama ci fier dama ci kontaan lool lool pour def ko ak sama waa koñ muy waa yi am naa ci yëg-yëg bu fort sax soxna bu ma ci amoon tey rek kontaan naa ko macha allah. waa am ñun dañuy bëgg ay chiffres loolu dañ ko bëgg suñu xol foog ñu dugg ci chiffres yi daal <laughs> nga cof ci tuuti rek. waa koppar yi moom dama ciy gërëm xam ma yow gërëm ngay bañ te damay gërëm commencé ti nga damay gërëm Baba Ndoye moo nekkoon meeru Caaroy yàlla weddi mais maire sortant maire sortant waaye teewul loxo ma ngi ci biir ma ciy gërëm tamit suñu monsieur maire bii nga xam ne mujjee naa ñëw sax. Mbaye seen di ko gërëm di gërëm Modou Gueye tamit dégg nga maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di gërëm suñu waa koñ ndaxte ku nekk dugal nga ci sa dërëm ak sa ñaar dërëm di gërëm ñëpp ci kaw ndogal ndax li boo ko xoolee xam nga ni maanaam weccet dugg na ci weccet <laughs> weccet dugg na ci ñaareel bi nag li gën a maanaam ngërëm li lii ko gën a lii gën a fort ngërëm li te mu gën a fort mi Ndeye Fatou Seck la voyante mooy seetkat bu mag international continental la couturière bi nga xamante ni dafa jël xaasam bu bëri barke Seydina Muhammad weebu ma ko yónnee ma ko ne ma nday ami sal bi maa ko defee ci ndogu li ñu ne déetawaay mu ñëwal ma lii ñaari tunu yi yëpp yónnee ma ko nday faatu madame Seck madame Saw macha allah moo def lii yónnee ma xaas bu bëree bare bari bare kenn du moom ma koy gërëm nag lool lool lool ndax jàpp na ci bis bi dooleem ñëw na yéreem ñëw na yëg-yëgam ñëw na macha allah di gërëm sama yaay sama yaay tey moom ma njëkk a soqi dafa xëy jox ma xaas bari teg ci sa rabal teg ci sa rabal na ma lii man maa ko jàpp ci bis bi teg ci sër rabal bi sa rabal bi nag xamul muy wunnu mais jox na ma ko. sa boobu dinañ ci dugg ci biir ci kanam ak wante. <laughs> tey amul jooy <laughs> waxtaan la tey tey kenn du fi jooy de waa léegi tey li nga xam ne mooy ndogu bi parce que booy def loo xam ne genre acte la euh, bu bu noble da am loo xam ne da nga koy mébét sa xol surtout ñu toll ci weeri koor nga xam ne yàlla jamono ji lu fii euh, mindeef ñaan rek dina ko nangu tey soo amee looy ñaan ci sa journée bi nga xam ne def nga ko lu bokkul sa mbiru yaay mais sa mbirum bopp lan la lu bokkul ak sa mbiru yaay mais sama mbiru bopp la waaw li may ñaan mooy li may ñaan nga ma laaj non waaw li may ñaan sama xol bi li ma def ci ndogaleeg yooyu li may ñaan sama xol mooy ma dund wér ba mën naa am lu ma yóbbu sama yaay màkk à part sama <laughs> <laughs> sama bopp moom bëgg naa oto waxoon nañ oto bi wax woo ci Marième Faye woo ci Wally Seck dinañ leen woowaat <laughs> dañ leen woowaat dinañ ñu oto bi tant que yegg si ñu leen bàyyi di leen di woo <laughs> loolu moom chaque instant dañ leen bippe mais yow laa wax yow sa bopp sa mbirum bopp. waaw sama mbirum bopp loolu nan laay waxee. la nga bëggal laa bëgg sama bopp wér. gudd fan ak projet yu bëri. Ah, projet yu bëri. Hmm? wér ak gudd fan boobu ak projet yu bari yi mm. eh, ci sëru rawal bi dafa mel ni sa yaay laa cax ndax instant bi sànq am na sa benn xarit bu ñu jël mu lay ñaanal ci célibataire bi yàgg na ñu ngi lay ñaanal nga génn ci tamit <laughs> buggoo cee waaye dinaa la ci dugal. non célibataire gi nag wax dëgg yàlla yàgg na mais yàggul mais xam nga say tas même boo tasee sax un an sax du tee dangay ngay bëgg borom kër ndax euh, jigéen sëyoo ko jig te ñun sëy mooy suñu taar ndax tey soo nee Selbé amul borom kër maanaam day day day neex a chercher mais su nekkee ana Selbé am na borom kër da lay couvrir da couvrir bëgg naa borom kër gu baax gu ma mën a yor ku baax ku am taalibe waaw ko am taalibe bëgg naa ko même bu nekkul murit xam nga des fois mën nga nekk murit te doo am taalibe mais nga nekk murit am taalibe nga nekk ñàkk nekk murit mais na nga am taalibe loo mënta doon nekkal xaadir laayeen ñase loo mën a doon mais amal taalibe soo amee taalibe rek da am yëg-yëg am xol am xol bu rafet ndax boo ne boo nekkee taalibe rek amun na lépp ndax doo nekk taalibe pare soxor wala ngay bon waaw c'est ça dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ci weeru koor bii nga xamante nii ñi ngi jóge ci vendredi tey di samedi ñi ngi ñaan yàlla lépp loo xamante nii ñi ngi koy mbébét mu nekk lu rafet nekk lu lu loo xamante ni ci suñu xol lañ ko tibbee nag lu gën ci ñun ak gën ci suñu xarit yi ah gën ci Sénégal yàlla ko yàlla def ñi nekk ci prison yàlla leen fa yàlla nekk ci lalu hôpital yi yàlla leen fa yàlla yëkkati fëgg seen bopp li tax tey jii lii rëyut ba rëy sax dama am dëj fan yi sama doom bàjjen sama doom nijaay moo génnoon àdduna muy Ndeye Gueye na ko ñëpp ñaanal yàlla oyofal suuf ci kawam moo tax sax yëf ñu xaw koo yemale ña ci lalu hôpital yal na yàlla fukk seen bopp ñi nga xamante nii nag samay xarit lañ ñoom it ñu ngi nii amuñu jëkkër jëkkër dañu dafa jafe de. parce que célibataire moo la doon ñaanal célibataire di poser question <laughs> loolu tamit. ñu ngi nii toog de kenn amu ci jëkkër waaye yàlla na yàlla may boroom kër yàlla na yàlla may boroom kër mu gën ci ñoom gis nga dañuy ñaan yàlla. tamit ci jëkkër jooju balaa ñuy hmm. avancé est-ce que du yow yaay dàqe ndaxte selbe ni mu jongoma ñu bëri xaaruñu woon loolu effet surprise la doon daal ndax sa jongoma ndax aussi voilà quoi. man nag kenn nobu ma nag. billaay kenn nobu ma man gisaguma ku ne ma jetem. amagul. jetem moi aussi. I love you I love you may xaat xol yëpp dégguma ko. may xaat lii ay yi si bi yooyu yëpp dégguma ci benn. waaw man daal maa ngi nii toog gisuma ku ne ma salbe je t'aime I love you Selbé jox ma sa numéro téléphone sax ma woo la des fois danga may laaj sama numéro téléphone ma jàpp ni yow danga may woo incarné ma mais doo mujj incarné nga naan sama fan sa <laughs> aj level ban ajuma benn level ajuma benn level damay bëgg ku may doxaan mais kenn doxaanu ma tamit ah bëgg naa ku may doxaan de ñu ngi lay ñaanal yàlla déwén incha allah wala aw ma far barke Seydina Mouhamed aw ma far benn far laa amoon ñu bàyyante temps yële instant yi aw ma kenn fëgg leen bu yi nag ngeen doxaan ma des fois samay toog naa allo taddi mon cœur ciw foo ne tu me manques ñëwal ah sama teg la loxo nii waaye gis ma kenn maa ngi nii Selma daal bu xëy liggéey wàcc tëdd xanaa sama yaay ndeysaan nekk ci néegam jeex na maa ngi nii. fii déwén incha allah situation dina changé ñu la koy ñaanal. déwén balaa déwén man suba suma sañoon tey am jëkkër. yaa ngi xalabu sama suma sañoon am jëkkër. anytime waaw def yi fi mag waaye nag bëgguma jëkkëru xale nag. Hmm, kilifa bëgguma jëkkëru xale xale yi dañ lay sonal. ay loolu lañuy autocollant rek lañ lay defal ay kër ay loofu autocollant yooyu dañ ci bu dee kilifa yi dañ lay yor yërëm la góor gi moom waa genre góor gi naa ko bàyyi ak sama doom ji genre góor gi tey ji xolal dañ lay rey ak ah connexion téeméer li ñu téeméer bëgg la rey vocal yu dul jeex yàlla boo xamante ni duñ am connexion côté fi bu ñu dem dajji ko <laughs> toog fa di la vocal merci rek. <laughs> Sénégo TV ak Kawtef sa dernier gàttul. <laughs> ah waa Sénégo TV maa ngi leen di gërëm sama xarit bi ndaysaan yow kenn du yow yaa ma bëggal sa bopp baax nga yaru nga dox nank wax nank dama la ko waxee woon rek jigéen waxam dafa war a duus teew wax dafa duus macha allah kenn du yow wuute nga ak man wax bu wax bu may di ngaña ngaña ngi ah xam nga kon maa ngi ñëpp di sant ñëpp. di gërëm sama xarit yi sama ginnaaw di gërëm sama doom ji kenn du moom bàyyi na léppam ñëw teew ci sama bis bi gërëm naa ñëpp gërëm naa ñi ñëw ak ñëwul ndax bis bi dafa xat dégg nga te maanaam programme ñoo dajaloo artistes yëpp ay def ndogu ñëpp ay def ndogu bari na artistes yu bëri ñu noonu dañuy ñëw mais dama ci blâmer kenn affaire ñoo xat te ku nekk fi yaa ngi sa ruq di jaamu yàlla ndax tey jii su ñu demee bay def maanaam tey ndogu tey boo xoolee tey ñëpp koy defandoo artiste yëpp nga koy def ndax jaamu yàlla la jaamu yàlla la te kon jaamu yàlla dafa yaatu te ku ne yaa ngi bay sawaar ku ne yaa ngi si ruq di bay sawaar kon yaakaar naa ni kenn balaame kenn maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant waa caaro yi di gërëm sama waa koñ di gërëm sama xarit yii ñaaña mii mbuusu ji la ma defaral mbuus la ci xaalisam indil ma ko kenn du moom sama xarit bii yaay faalit boobu ba léegi toogul taxawul loxoom ak dooleem lépp ngi ci jël xaas bari jox ma dolli ma na man nday ami acca nañ ci def sama doom ji waxi noppi nanaa ngi nii ay weewam la yor macha allah ba pare bàyyi yoonam tout la journée mi ngi fii ci kër gi baax yaaye nga nale soppale jëla ma ko dafa sori moom it sama téléphone bii su ma xoolee weew moom laa ciy gis kon kenn du ñoom moom it bàyyi liggéeyam ñëw lu ma nekk ñu ngi ci lu ma nekk ñu ngi ci nit nag yaakaar naa ni booy gërëm ka dee ca yow yaakaar naa doo gërëm keneen di ko bàyyi te yàlla na yàlla fay yàlla na leen yàlla fay ndax lii ñu def nii defal ñu ma ko def seen bopp lañ ko defal ndax ndogu yi ñu ko def jaamu yàlla lañ ko jox ñu koy lekk seen xol di neex kon loolu jaamu yàlla la jaamu yàlla la maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa Caaroy aussi di gërëm sama waa koñ su ma limee may juum mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp barke Serigne Touba gërëm naa leen de kontaan naa ci ñoom kontaan sama jabaru mag yi kontaan sama rakk yi kontaan sama mag yu góor yi di gërëm Vieux Diop di gërëm Pape Konaat mooy sama taawu yaay ah di gërëm Ablaye Diallo di gërëm Balla jóob sama rakk xaas bëri la ma jox xaas bëri la ma jox macha allah maa ngi leen gërëm ñoom ñëpp Vieux sama mag yëpp seen alal ñëw na ci man boo bëlee tooguñu taxawuñu ñoom ñëpp ku ci nekk jël nga sa alal jox ma mooy sama magi góor yooyu yàlla na yàlla dafal jàmm kontaan naa ci. yaay bu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ndey Amy Selbé def nañ ak moom émission mu xamal ñu ne dafa bëgg yaayam wax ay histoire ak ay anecdote yoo xam ne ci émission bi sax dafa jooy tey tungu ne du teew ñuy nataal tey sa doom boobu di Ndeye Amy Diop boo ñu doon wax ci li nga xam ne chaque jour da koy def rek ci diggante doom ak waajur nga xam ne rek saa su ne da nga koy ñeewantal te da koy bëgg di ko ñaanal muy jëm ci kanam lan la nga ñu mën a wax ci loolu. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di di la sant yow mi yow si baaxam waaw ndey mi maa yaayam ndey mi Jóob maa yaayam maa ko jur mu bëgg aar lool nag ba tudde boppam Selbé kon affaire aar bi nag wax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla moom terewoon naa ko ko dama ko tere guddi ak bëccëg di ko tere waaye mu bëgg ko rek bëgg ko rek ay maga bi tam di ko tere mu bëgg ko rek ma ne ko ndey mi aar bii du sa kii yooyu ma yaay dama ko bëgg ma xool ba na bëgg na ko ma ñaanal ko ci waaye li ko ci woon ñaanal lépp rëccu ma ci dara léegi ko ci benn dërëm ma lu mu am man la ko indil lu mu am yaayam la ko indil bëgg na yaay bëgg na ay magam bëgg na ay rakkam bëgg na papaam dafa nelaw kii sama borom kër la am na maa moom ay gone waaye comme papa ji ko jur ni muy def papaam loolu ko loolu koy defal ndeyam yi am la kenn xaar ma yàlla ba mu nekk xale ba suñ doon yàlla tey musuma ko àtte xeex ko koo àtte mu musuma ko bàyyi itam sama kër ñëw fekk ko mu defalu ma li ma bëgg ba mu xale ba léegi nii la mel ko mu gis def na boppam ndey mi xale bi doo mën ko yendal àll dërëmam dërëmam ko amee doo ko jàmbat ci kanamam soo jàmbat ci mu jox la ko xolam rafet na woyof na bëgg na ma man mi yaayam bëggul sama dara dara dara tardé fu ma wax mun ma yaay damaa ñaan yàlla yóbbu la màkk ma ne ko yéen ji yegg na ñeem kooru ren gii manqué wu ma dara waaye dafa jënd pañeem dëkk indil ma man ko ma dara waaye dafa jënd pañeem dëkk indil ma gis nga photo bi ne sama sama suur anniversaire la ko dafa bett ma fii la ma bett ci kolol bi damaa jooy kër ba ba dee lu ne indil na ma ko lu ne lu ne lu ne lu ne teg ci xaalis bu bari ba bëgg a dee man ko ñaanal fan gudd ak wér lii mu may defal yàlla ba ay doom doom di ko defal kàttuñu yàlla ak baaxam sama xol sedd na si moom lool lool lool lool lool yàlla yàlla seral seral xoram ni mu seral sama xool bi émission boobu ngeen doon émission di di yow la woon keroog fii laa jooy ma kaw laal ndax ma ko envoyé li mu waxee ba jooy li mu wax yëpp dëgg la fanaan la biti ba taay yi waaye gis nga diggante meeg doom rek su fanaan ne man ci kaw laay fanaan di ko xool fu ma ko séen rek jëli naa ko maam ma ko téléphone sama téléphone dafay benn yoon nday mi foo yaa ngi ñëw nday mi foo toll nday ngi yaa ba ba loolu moo yëpp dëgg la mu bëgg nag te yàlla xër ko ci te nekkul lu bon de wax dëgg yàlla aar nekkul lu bon waaye man maa ko jublu woon rek waaye yàlla ko ci yàlla defal ndam moo am ci lu kawe njottam yéen itam yàlla guddal seen fan yi nitam yàlla taxawu leen fay leen lii ngeen di liggéey ci doomi aadama yi wacc seen xam nga ne koor metti na ngeen nekk ci koor yëpp ñëw fii taxawu ko itam yàlla yàlla fay yéen itam li ngeen di wut ci àddina ci li ngeen di seen métier mi yàlla leen ci yàlla fulal lu kawe seen njott bàkk seen fàllu